pour euh, loo xam ni ñu ngi koy waxtaanee depuis ay fan bëgg a jagleel benn bis au niveau du département jagleel élèves yi nga xam ni dañu ràññeeku ci wàllum njàng mi jàngalekat yi ak partenaires yi ak acteurs yëpp. boo jëlee deux mille dix neuf ba léegi bu ñu génnee année deux mille vingt et te loolu moom ñu ngi jóge ci Covid bi am na daal climat bu baax dafay baax na loolu. autour du préfet ñu célébrer ko. loolu ñu commencé boo jëlee élémentaire ci élèves bu cm yi nga xam ni dañu gën a ràññeeku ci essai bi loolu loolu foofu lañ koy tànne euh, école bu nekk dañ ci jël ñaar ci élémentaire boo ñëwee ci collège bi kooku résultat composition yi la ñuy jël classe bu nekk dañ ci jël euh, xale bi ci gën a ci école bi bu gën a ràññeeku. à l'échelle euh, de la commune comme dañuy ñëw ci département bi. maanaam mu ñu jël ñëpp il faut que c'est comme ministère buy tànn meilleur élève du Sénégal il faut mu am critères yi muy yu muy teg ci enseignants yi aussi même chose dañuy seet ñi nga xam ne ci résultat CFE ñoom ñoo gën a xarañ euh, ñu fete aussi retraités yi mais aussi partenaires yi nga xam ni wax dëgg yàlla boobalee ñu ngi liggéey ak IEF danañ am moment pour ñu ne leen merci ci seen contribution